الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما gannaaw loolu mbokku jullit yi ñi ngi sant suñu borom jalla wa ala moo ñu bind moo ñu xéewal moo ñu indi àdduna ngir nattuñu moo ñu nar a dajale allaxira ngir fay ñu mooy ki yónni ci ñun sunub yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba baa bis penc di taxaw ñi ngi leen di dénk ngalawaay ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko kenn ci yéen bu mu dee lu dul ñi ngi jébbalul boroomam ñu ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko ci lépp lu ñuy wax mu doon wax ju dëggu ngiree yàlla baal ñu suñu bakkaar te yéwénal suñuy mbir may ñu texeg adduna texeg allaxira gannaaw loolu suñu xutba tey bi mi ngi nar a jëm ci benn bis ci bis yi gën a màgg bu doomu aadama nar a jaar bokk doomu aadama jaar nga ay bis nga doon bis bu nga juddoo la mu nekkoon ngénte ci say mbokk bisu céet nga doon bis bi ngay dee la ila axiri yooyu yépp am ñu ko fekke am ñu ko wuute waaye mu am bis bu nekk suñu kanam suñu bàyyi aadama dana ko fekke suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam fekke ko ñu nag ñiy ñëw ba ilaa yawmi din fekke ko bis boobu mbokk julit mooy yowmul xisaab mooy bis bi yàlla di xisaab doomu aadama yi loolu mbir la moo xam ne di baril di ko fàttali munta ñàkk ci jamono bu mu mën a doon waaye rawatina jamono ji ñuy dund jamono joo xam ne li ittiin doomu aadama yi sàggan lool leen bari na lool ba xol yi tey lu nekk ma nga ca bam des waajal la nga xam ne mooy allaxira bam des tiit ragal la nga xam ne mooy xew allaxira ci loolu yàlla taggee woon ay jaamam ne jaam yu baax yi mooy ñi nga xam ne dañuy ragal bisu penc wa hum min as-saati mushfiqun dañuy ragal seen bugulu boroom waaye mbokk julit la nga xam ne mooy nit yi tey boo leen di xool da ngay gis ngëm goo xam ne wàññeeku na lool ba ñu bari la yàlla bakke woon yéeféer ya daa di doon loo xam ne day wàcc seen kaw suñu borom nee na yéeféer ya seen yoon nekkul ci àllaaxira dañ caa sikk sàkka xooluñu ko toppatewuñu ko waaye booy xool tey li ëpp ci doxalinu julli ci tey nga xool seeni jëfin da ngay gis ne ku mel ni est ce que gëm na ne ne balaa yàgg dana dee est ce que gëm na ne ne mi ngi nar a wàcc ci bàmmeel bàmmeel boobu ak la ci nekk ci fitna ak la ci nekk ci laaj yuñ koy laaj ak la ci nekk ci mbugal ndax gëm na ne yàlla subhanahu wa taala dana ko dekkal ndax gëm na ne ne suñu borom mi ngi waajal ajjana mi ngi waajal sawara lii lépp mbokk bay xool doxalinu doomu aadama yi tey dangay gis ne lu bari ci nit ñi jaaruñu ci yoon woowee ndax waa ji jëm àllaaxira boo ko gisee xam ko mooy ki nga xam ne dundam gépp da koy jéem a dëppale la neex boroomam suñu borom ne ki nga xam ne mooy jëfal àllaaxira te jëfal ko la nga xam ne mooy ay jëfam wa saa laha sa'yaha mooy lam laaj ci jëf mu jëf ko suñu borom nee na ñu mel nii day suñ ñëwee dinaa leen gërëm yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñe waaye mbokk li ëpp tey ci doomu aadama yi am na yeneen déviation yoo xam ne dañu leen caa dévié yóbbu leen ci ay xew-xew yu xumb lool yu bari mbooloo lool ñu jox leen ci ay garanti ci ne lii day ni mu neexe ni mu xumbe noonu la nekkee yoon bu gaaw pour tabbal leen aljanna loolee tax na ba nit ñi seen xel dal na ci loolu wareef yi yàlla santaane woon sàggane nañ ko la leen yàlla waxoon bu leen ko defe di seen yoon nekkatu ca ndax garanti yi nga xam ne am nañ ko ne dee rek moo leen tee tabbi aljanna waaye mbokk loolu wallahi ku ko dee yàlla yowm alqiyama da nga am mbetteel lool da nga am mbetteel lool suñu borom nee na lu bëri ci jaam yi buñ ñëwee bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibun dañ fekk ci yàlla loo xam ne yaakaaruñu woon mukk ne lii la ñuy fekk yowm alqiyama aaya la boo xam ne da doon jooyloo borom xam-xam yi ragal yàlla ndax lu sa xam-xam yaatu yaatu lu sa jaamu yàlla yaatu yaatu lan moo lay xaar ci sa borom ndax xam nga ko xamuloo ko kan la yàlla subhanahu wa taala nangul ndax xam na ko xamuloo ko loolu kon di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu jéem a xool naka lay bàyyiwaatee xel allaxira mbokk allaxira mooy loo xam ne lu sa xalaat ñor-ñor lu sa njortu kawe-kawe munoo fexe ba imaginer la ca nekk ci fitna ak i jafe-jafe yii nar a xaar doomu aadama yi nga xam ne kenn du ci mucc lu dul ko yàlla musal yàlla yàlla boole ñu ci jëm yi musal loolu moo tax ba mbokk julit wareef la léeg-léeg ñuy fàttali lenn ci ay étape donte ne étape yooyu ab xutba du ko du ko jeexal ndax suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama dana duré dana yàgg ci yéeféer yi diiru juróom fukki junni at juróom fukki junni at donte ne suñu borom yàlla ci ak yombalam da ko yombal ci julit ñi ba mel ne benn bëccëgu àdduna yàlla na yàlla boole ñu ci ñoom doomu aadama yi suñu borom dana leen génne seen bàmmeel yonent ak ku dul yonent ñoom ñépp ñu ne futtu comme bi ñuy ñëw ci àdduna ndax mas ngeen a gis liir bu indaale ay dàll ndax mas ngeen a gis liir bu indaale yére wala mbaxane dañuy génn def yaramu neen góor ak jigéen suñu ay Aïcha ni ah yonent yàlla bi góor ak jigéen mu ne ko Aïcha mbir ma gën naa ñàng ci ngay xalaat ndax kii ma dendal góor la wala jigéen loolee mbokk di mbir moo xam ne suñu borom yàlla bu ñu génnee suñuy jëmm dana wàcce jant bi mu ñëw tiim ñu tiim ñu ci loo xam ne day toll à peu près lu manqué deux kilomètres te bokk na lu scientifique yi wax jant bi mi ngi nekk cent cinquante millions de kilomètres la ñu sori suñu borom dina ko wàcce ba mu jege ñu deux kilomètres bu ko defee doomu aadama yi seen yaram yi di génnee ñaq moo xam ne ku nekk place ba nga taxaw day méngóog na nga taxawe woon ci àdduna am na ñoo xam ne fa ñuy taxaw ñaq ba dana dem ba seeni kosten am ñoo xam ne ñaq ba dana dem ba seen oom am ñoo xam ne ñaq ba day ñëw seen ndigg am ñoo xam ne ñaq bi day ñëw ba ngalaab leen seen gémmiñ seen genn wàllu kanam rek mooy feeñ bu ko defee lay poussière ba fees ko dent comme na ko yàlla waxee ci aaya yu bëri doomu aadama yi def yaram mu neen tànku neen yonent bi alei salaam nee na li ñu mën a daggee ci yow lépp sax ba nga duggagul néegu góor lépp mooy génn su ko defee mbokk keroog suñu borom dana teral suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam may ko benn déeg déeg boo xam ne ñu ngi koy alimenté ca kaw sara ba nekk ci aljanna déeg boo xam ne nii dana am guddaayu six cent kilomètres yaatuwaayu six cent kilomètres la ca nekk ci ay korpo bari lool ba mel ni biddiw yu asamaan mu doon weex tàll mel ne meew gën a neex lem gën a xeeñ misk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci déeg bi daal di di woo xeetam kaay leen ngeen naan lan la leen di xàmmee mooy njàpp mi ñu doon jàpp bu ko defee julit ñi ñëw di naan ku ñëw ba naan ci déeg bi rek ca ngay teqali ko mar abadan abadan yàlla yàlla boole ñu ca ñettey naan waaye yonent bi alayhi salaam nee ne fi ma taxaw di woo sama xeet la malaaka yi ñëw ne leen pàcc xaat leen am benn pàcc bu ñuy puus jëme la sawar ma ne eh ñii sama xeet sama xeet ndax maa ngi gis yeexataayu njàpp bi ñu ne ma ay muhammad ñii day sa xeet lañ bokk waaye xamoo luñ def sa gannaaw de ba nga fa jógee la nga fa bàyyi woon yépp soppi nañ mbokk ana tey ñaata ñooy woote woote ne diine lislaam lañ bokk ca la yonent bi alayhi salaam indi woon lépp soppi nañ ko créé ay yeneen façon jaamu yàlla yu ñu jàpp ne ci yàlla la jógee wala jàpp ne seen xalaat bopp la jógee waaye moo gën a kawe la nga xam ne mooy ponk yi yonent yàlla bi indi woon loole bu ko defee yonent bi alayhi salaam ne nañ ma sori nañ ma sori ñooñee da nga ca gis ñoo xam ne daani riir jëm ca ñun toppoon et yéen yéen lay day lañ toppoon ñu jàppoon ne yéen a nga ñuy jubal ci yoonu njub da ngeen ñu mën a xettali su ko defee ñooñu daal di denc ci ñoom moom la borom bi di wax ne istabarra allazina tubi'u min allazina tabahu daal di denc ci ñoom loolee di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun bala ngaa dem yowmal qiyaama naan aka neexoon ma dellu adduna ba kii ma jàppoon ne damay sowe yowmal qiyaama tey jii mi ngi may daw mënulu ma dara ngan la waay jàppal tey koo xam ne nii moom du la trahir mukk mooy kan mooy sa borom yaakaaral sa borom jaamul sa borom noo koy defee mooy toppal ma sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam lu sa faa nag moom bàyyi ko woon ko gannaaw lii mbokk mooy la nga xam ne mooy la borom bi subhanahu wa taala di wax bu ko defee doomu aadama yi daan jaaxle taxawaay boo xam ne kenn du xam foo jëm ba bàyyi yàlla xelal leen ne leen dem leen ci aadama mi seen bàyyi buñ demee ci aadama ne ko aadama alayhi salaam kaay ñaan suñu borom mu ñëw wàcc atte ñu ñuy dem sawara dem sawara ñu dem àjjana dem àjjana taxawaay bi métti na mu yebal leen ci nuux nuux yebal leen ci ibrahim yonent yi di ko jokkalante ba baa ñuy ñëw suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala ngir yàlla ñëw atte ay jaamam terew la suñu borom yàlla ñëw atte ay jaamam su ko defee doomu aadama yi ñu ràññeele leen amul kenn kuy góor ak jigéen lu dul la nga xamee ni nii jëfan nga ko lu mu tuuti tuuti lu mu bari bari loolee dañ ko teewal nga gis ko suñu borom indi balance buy nekk bi su penc képp kenn ci ñun ñu daal di pesé lay jëfam yu baax ak jëfam yu bon koo xam ne sa jëf yu baax gën naa bari da ngay daal di am départ xam ne yow mii kat nar ngaa doon koo xam ne nii koy texe nga koo xam ne sa jëf yu bon gën naa bari da nga am yaqin ci ne yow mii da ngaa nar a texee di waaye xam leen ne mbokk bala ñu pesé jëf yooyee ku nekk ci ñun ak ba nga yoraloon moromam da nga ko ko fay ca amul kenn kuy bal kenn ndax ku nekk ci ñoom am na loo xam ne nii doy na la sëkk suñu borom nee na xatta frère bi nga bokkal ndey ak baay xatta sa yaay ji la jur xatta sa baay bi la jur ku nekk dalay daw fay ma àq ba nga xam ne yoroloon nga ma ko amul kenn kuy mën a dimbali kenn mooy gis boo xam ne kenn du mënal kenn dara kenn du dimbali kenn ku nekk day daw sa morom ngir mënuloo ko dara borom bi subhanahu wa taala ne même bu doon te ne la gën a tuuti ci pepp daal koy indi si penc su ko defee borom bi pesé jëf yi suñu pesé jëfi jaam yépp malaaka yi nota ko ci téere ya gannaaw ba nag la leen borom bi subhanahu wa taala di sant ñu génn résultat yi résultat yooyu mooy lan mooy ku nekk ñu malaaka yi ñëw jox la sa résultat jëf ña nga xam ne dañoo nar a texe seen ndeyjoor lañ leen koy jox ñu leen félicitation yow day texe nga yàlla yàlla boolo ñu ca amma ñi nga xam ne dañoo texee di ca seen gannaaw la ñuy jaare lem seeni loxo ca seen gannaaw càmmoñ teg ca téere ba na la yaa ngi ni day ku nar a texee di nga loolee doon mbir moo xam ne ku nekk ci ñu war ci bàyyi xel ba ñu gàddoo suñuy téere amul kenn ci ñun du man du yow du kenn ku mën a doon ci yàlla mos a bind lu dul yàlla dana wax ak yow directement wax joo xam ne kenn du interprète seen diggante boo xoolee sa ndeyjoor doo gis lu dul jëf yi nga jëfoon boo xoolee càmmooñ doo gis lu dul la nga jëfoon boo xoolee sa kanam doo gis lu dul sawara su ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di lay xisaab sa xisaab boo xam ne da ngay jàpp ndekete bisu penc man doo nga taxoon ñu taxawal ko borom bi subhanahu wa taala bu dee kum nar a xettalee dana ko woo da ko ay diw xam nga de doon nga def nangam de ah ana kay sama borom ak nangam de ana kay sama borom mu ne waaye xam nga dama laa suturaaloon ci àdduna ñu ne mu ne ko waaw mu ne ko tey suturaal naa la jël sa téere demal tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ca loolu mu lay jàngal ne mbokk bakkaar day kenn mënu caa mucc waaye fexeel ba la nga xam ne mooy sa rëcc rëcc doon sa digganteeg sa borom waaye carte kat bi ñëpp xam ne day carte kii bi jaay boppam ñëpp xam ne day jaay boppam lekkatu riba bi ñëpp xam lekkatu riba la daggkatu mbokk gi ñëpp xam ko loolee mbokk day mandargaal ne ñi la yàlla suturaalul ci àdduna doo bokk ci ñiy sutural alaxira amma bu dee tooñkat yeeg bokk na loo xam ne suñu borom yàlla dana ko def ak ñoom ñu yëkkati leen mboolem milliards yi dajee alaxira xam leen ñu ne kii mooy diw doomu diw diw moo nekkoon ci àdduna di def nangam di def nangam malaaka yi rëbb ko nit ak jinne rëbb ko ñu doo koo jël doo ko tabbal la nga xam ne moom mooy sawara borom bi mi ngi ñu fay wax lu tiitlu ca mooy dana indi ay seede seede yooyee bokk na ca malaaka ya naam waaye bokk na ca suuf bi ngay dox suñu borom nee na suuf dana yëngu keroog yowmal qiyaama nettali mboolem loo xam ne doomu aadama yi defoon nañ ko mbokk gis ngeen la nga xam ne mooy asaara yi yàlla may ñu tey mën nga koo téye ci doomu aadama jël ay waxam jël ay jëfam appareil bi lu ci nekk lépp ci biir suuf la jóge scientifique yi ñoo ko jël rek assemblé ko ba mu génnee caméra wala portable wala noo ko mën a tuddee laay lépp ci suuf la jóge loolu moo tax suuf boobu suñu borom def na ci loo xam ne lu waay mas a jëf ci moom yowmal xiyaama dana taxaw netti li ko waaye lu gën a yéeme loolu suñu borom nee na heure bu ñu dajalee yéefiri yowmal qiyaam ba baa ñu yegg si shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluduhum bima kaanu ya'maluun suñu borom nee na sa nopp yi dana taxaw di nettali lépp loo ma saan toog di ko déglu sa bët yi dana taxaw di nettali lépp loo ma saan toog di ko seetaan sa yaram bi der bi yëpp dana ma sa toog di déglu lépp loo xam ne dundal nga ko ba ñoom dañuy wax ay yéen suñu der lu tax ngeen di seede suñu kaw te maa ngi ne ànd sawara ñu ne ko ñun sañu ñoo bañ a wax yàlla mi nga xam ne mooy wax loo lépp moo ñu wax loo borom bi nag ne mi ngi nii dem leen xam leen ne day munu leen a yegg fenn te seedewu leen la nga xam ne mooy cër yi yàlla subhanahu wa taala boole leen ak yéen loolu moo tax ba mbokk julit ku nekk ci ñun war naa waajal bis bu mag boobee nga xam ne suñu borom danañu àttee suñu àttee ba pare léegi nag daa di jël li nga xam ne mooy siroot ñu war koo gëm yonente bi alayhi salaam wax ko ci xadis yoo xam ne buxaari muslim solo nañ ko ñëw na ci yenn riwaaya wallahu aalam na dox ba da ngay dox ci kaw jëm kaw junni at dox jë tàllal junni at wàcc junni at yàlla nga ko teg ci kaw siraat doomu aadama ci kaw jahannam moom moo tudd siraat yàlla teg ko ci kaw jahannam doomu aadama yépp fay jaar yeneen teg ku dul yeneen suñu borom mu ne wa min wa in minkum illa wariduha yéen ñëpp yi na fay jaar ku nekk na nga dunde woon ci yoonu yàlla bii di siraatul mustaqim noonu ngay jaare biir siraat ña nga xam ne rafetaloon nañu seen diine dañu fay jaar comme melax am ñu fay jaar comme ngelaw am ñu fay jaar comme fas am ñoo xam ne bu ñu fay jaar dañuy darngu sawara di leen lakk diiru temps bañ fa nekk am na ñoo xam ne waliyas billah mooy dañuy mabbu dugg ci biir sawara te mooy mboole mi yéeféer ak mboole mi bokk bokkalekat waaye malheureusement mbokk julit dana ci bokk ay julit julit yu sagganoon ci njaaloo ga ñu nekke woon ci njabar ga ñu nekke woon ci dox la nga xam ne mooy tànk yàq ya ñu nekke woon ñu ci bari suñu borom dañ leen bàyyi ñu tabbi sawara la ko soob bu leen fa bàyyee la ko soob mu doog leen a génne pour yóbbu leen àjjana suñu yonente alayhi salatu wassalaam nee na ko rek bu ñu nekkee ci kaw sirat xatta yonent yàlla yépp lu ñuy wax allahuma sallim allahuma sallim ay yàlla musulma ay yàlla musulma kon nga la waay doomu aadama xamal ne kenn mooy muslim yi sa borom sa xol bi moytul di ko wékk ci abubakarin sadiq na yowmal qiyaama buy jàll jàllaa nañu comme ni ngeen koy dégg seen way yi bu ko wékk ci imaamu malik wala buxaari wala muslim wala nga koy wékk ci képp koo jàpp ni nitug yàlla la nga jàpp ne yowmal qiyaama suñ demee def noonu yàlla kii saa su ngóor la daa doy boole ci mbooloo jàllale la mbokk loolu amul xataa yeneen teel yi dañuy wax allahuma sallim sallim ay yàlla ñu ngi lay ñaan nga musal ñu nga musal ñu ay yéen mbokk julit xam leen ni bu dee yeneen yi ñooy wax loolu ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel waajal bu baax bis boobu nekk suñu kanam laa rey ba fii benn sikka amu ca suñu borom nee na keroog tooñkat yi daan taxaw ci seen kanamu borom daañu ne ay yàlla tey day gis nañu sawaraa ngi nii àjjanaa ngi nii ay yàlla xam nañ tey ne yow dong yaay jëriñ yow dong yaay lor yow dong lañu waroon a jaamu ay yàlla may ñu nag ñu delluwaat adduna bu ñu delluwaatee adduna day daañu rafetal ab jaamu suñu borom mu ne déedéet gis na ki tey kay wax la ju ngeen di wax waaye yéen ñii dinaa leen feesal sawara ba sawara fees del loolee mbokk suñu borom mi ngi koy nettali falillahi alhamdu ñun demaguñu àllaaxira ñi ngi fii suñu borom yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñi ñi ngi dund dund googu xamaguñu lan moo ci des ngan la waaye li des suñu dund gi nañ góorgóorlu dabantal ci la nga xam ne moo passé woon jéem cee góorgóorlu tuub ci lan gàttali ñu woon ci jaamu yàlla yi nga xam ne xamoon nañ ko te daawuñu ko def waaye tuub ci la nga xamee ne mooy bakkaar yi nga xam ne ña nga ci nekkoon sëgg ci te nga looy adduna ba ñoo wor ñu mën ko wutal ay télé jàpp ne waa babaa may def nangam babaa may def nangam abadan mbokk amul kenn ci ñun koo xam ne yàlla xamal na ko ana bis bi nga xam ne nii ca lay faat loolu kon muy war ci ñun képp kenn ci ñun bàyyi xel ca la nga xamee ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon Abdullah ibnu Omar ca ba ba yonent bi di wax ak moom amagul ñaar fukki at muy wane ne lii may wax waxuma ko bàyyi saq bi jaaw waaye yéen ndaw ñi dem leen armée lu yoof boo rombee armée lu soixante dix ans gis quinze ans gis vingt ans gis dix ans bala am na ñoo xam ne jour biñ juddoo ca lañu faa kon ku nekk ci ñun war a waajal daje bi muy daje ak boroomam subhanahu wa taala waajal goog mu koy waajal ragal goog mu koy ragal loolu mooy yokk adduna woyef ci yow loo ci ñàkk du la déranger wallahi heure boo màggalee àllaaxira sa xol même boo doon yeewoo ci néegu ñax di lekki mbiskit da ngay am xel mu dal fiix ndax adduna lay woyef ci yow waaye gis nga boo fàttee àllaaxira nan la may toutes les gratte-ciel de New York na nga jël toutes les comptes bancaires am ko day tax doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg ndax adduna këru fitna la ci adduna kenn du ci matal yal na yàlla delloo ñu rëyal àllaaxira suñu xol yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu jëfal ko lañ ko war a jëfal yal na yàlla subhanahu wa taala saxal ñu ci yoonu siraatal mustaqim yoon boo xam ne danañu may texek adduna may ñu texek àllaaxira yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet ëllëg bu ñuy dajeeg moom yal na yàlla suturaal ñu jéggal ñu yal na yàlla yombal suñu jéggig siraat yal na yàlla yombal suñu dugg ajjana bi la xisaab yal na yàlla defal ñu ko defal ko suñuy waajur defal ko bépp julit اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين